au Sénégal notamment les jeunes notamment les jeunes parce que ñuy mayee ndogu ñu bëri ay jeunes lañ quand même il doit ci def reportages, particulier surtout les jeunes garçons les hommes et tout Nous nañu aussi euh, ay jàmbaar lañu si loolu gis chaque fois ku ci nekk mu ngi góorgóorlu pour def ay solidarité Et lolo yakarna, man en tant que ministre chargé de la citoyenneté parce que kuy mayee ndogu moom yakarna naa du sànni xeer yaa ngi wala kuy maye ndogu mu ngi woon lan lañ war a sànni ci mbedd bi muy ndogu donc loolu nag vraiment su ñuy waaj a ko korité ma am occasion ñëw fii man dinaa rendre hommage tous les jeunes yi nga xam ne chaque jour ñu ngi développer seen esprit de solidarité man ma transformer esprit de solidarité boobu à un esprit patriotique à un esprit de citoyenneté boo xam ne ñu ngi koy wane tout au long de koor gi ñoom ñooñu maa ngi leen di beral mention spéciale yaakaar naa waroon nañu nag xalaat médaille spéciale boo xam ne dañ koy def mu nekk médaille de la solidarité bu ñuy takkal ces jeune là qui sont dans les quartiers mhm. mais aussi qui sont dans waaw non dugguñu si xëy ndaw yi dañoo wax ci solidarité la ñuy wax mhm. yaa ngi dégg di wax ci prix di wax ci tolluwaayu jamono di wax ci di wax ci waaw di wax ci dina mais dinaa porter ñoom seen parole <laughs> yaa ngi dégg parce que su ma gisee ay jeunes parce que newul ay maire ah je contre maire yi man suma yaay yeeg ñooñu mais ñoom tamit si kër yi nekk di jàppale suñu papa yi mais suñu gisee ay xale Yo, xamné durant tout le temps bu koor ñu ngi nekk ci mbedd bi di solidarité mais man en tant que ministre dinaa leen jaajëfal dinaa leen remercier féliciter au nom de toute la nation si ñu permettre bien sûr allez ñu ñu ci ci waxtaan bi dinañ mais dinañu wax politique ndax l'actualité politique placé sous mandat de dépôt euh, aujourd'hui est-ce que vous c'est-à-dire que parti bi ak doxaline bi nekul né da ngeen a am xembemteef pour démanteler le parti PASTEF. Ouais, mais d'abord PASTEF rek nek fi parti parti ñom Khalifa Sall ak ñom Barthélémy Dias parti la parti ñom Bougane parti la te man mosuma gis kenn ku bok ci Bougane bu ñu jàpp kon parti bobu du parti exemple la joxe parce que c'est là qu'on a parce que mon fils, la moom il borom manque bi de passage Du encourager si Hein? waaw waaw mais damay joxe exemple donc pour vous dire que avons une stigmatisation du parti nous avons aussi parti bu ñuy singali maintenant il serait utile et important nous rappeler le lu tax ñu parce que man gisuma moom yàgg na fi nekk mosuñu ko jàpp yàgg na fi nekk mosul am convocation police mosul am convocation gendarmerie donc su jékkee jékki rek am convocation police ou la euh, convocation gendarmerie dina baax nag nit ñi rappeler fee yi mu wax ba tax ñu jàpp ko man nag fee yi du ma ko commenté parce que ci yoon la nekk te man mbiru yoon mënu ma ko commenté mais li ma ci liir daal jàpp naa ne nekkul ay propos yoo xam ne war na ko wax loolu du ñàkk moo tax yoon woo ko maa ngi koy ñaanal nag yàlla fi mu nekk mu jógee fa parce que moom euh, sénégalais la yaakaar naa acteur politique la te ñun suñu nekkee ay acteur politique nekk ay sénégalais mënuñu yéene kenn kaso na ko yàlla jëlee fi mu nekk mais euh, sénégalais aussi. alors quand, on parle de Bassirou il et li une question Bobo. aujourd'hui euh, ça ne vous interpelle pas de toll ci 400 cent ay nit yoo xamante dañu parti bi nga au-delà de Pastef 400 euh, jeunes ñu teg leen ça ne vous interpelle pas Nous teg leen loxo tout simplement parce que nous une appartenance politique parce que c'est une liberté d'expression.

ben xale jogé ci prison nga laaj lan mo la fa yobbu mu né way dëkk bu metti rek mo doxal mënon agressé di dem man ñoo ñoo ma gëna a interpellé par contre je suis vraiment interpellé. vous n'avez pas je... non non j'ai bien compris. je dis pour leur appartenance politique. non non j'ai bien compris pour le fait que dañu exprimer. li nga xamante mom moy sen sen xalat da nga da nga teg leen ci loxo. da nga bëgg ma particularité ma particular ma def ma particulariser affaire bi mané la ñom 500 lañu si la nga wax ma ne ma ne ay 2000 et quelques wala ay 3000 boy yo xamné ñu ngi ci kassa bi. te code pénal moo leen fa yóbbu te boo yooyu soo leen laajee ba ci digg nga li nga def bu ñu yóbbu la fa dañ lay tontu ne la ah dëkk bu métti rek dama bëggoon jàppale sama yaay moo tax mën a agressé man ñooñu en tant que ministre de la jeunesse ñooñu ñoo ma gën a interpellé dañu wax waxu politique wax bu ñaaw teg ko ci nit teg ko ci ndoodu nit di ko wax bu ñu yóbbu leen fa moi je pense que ñooñu xam ne lan moo leen fay génnee wala suñu génnee ne lan moo leen di génnee lan moo tax ñu nekk mooy xam ne dëkk bi dafa am yoon dafa am loi dafa am règlement que war nañu moytu di wax ay wax yoo xam ne vraiment def ñu yóbbu ci ay jafe-jafe et yow en tant que ministre de la jeunesse quand quand vous disiez que né nañu tollu ci dina recruter 400 cent jeunes euh, pour ñu dem jëli Ousmane Sonko su fekkone ne un opposant moom moo wax monsieur le ministre est-ce que kooku dina fanane kërëm est-ce que lolu du firndeel euh, cette cette

boo taxaw ne daf ñu bëgg jiite ma dégg ko mu ne yéen seen président bi dinaa jël bakkanam wala mu jël sama bakkan ma gis ne bakkanu Sénégal bakkanu président mooy bakkanu Sénégal bakkan boobu bakkan bu am solo la parce que moom moo ñu jiite ku am fit wax loolu nag man sama xalaat tamit moo ne ah. ku kii ma wax c'est tout ce que vous donnez comme ah, réponse la loi xëy ah, nga leen di ah, woo pour ñu dem xeexi man nag su ma sañoon sax na arrêté politique bi ñu wax ci xëy bi. dinañ nañu wax ci li nga wax nañu wax ci li nga def nii ba waa kay waa kay exemple xam nga yaa ngi fii yaa ngi ma invité en tant que ministre de la bi da ko simmi solal ma sama manteau politique waaw xam nga bàyyi ma wax la rek. ayca solal ma sama manteau politique di ma poser ay questions ci politique su ma la répondre ni may deglu nan way warul répondre lii warul wax. dafa bokk ci sa ay casquette waaw dinaa leen tontu casquette politique kay dang ko koo ah, bokk donc léegi na léegi nangu ngeen ne kon ñun. nga yow yow du lol mom la ñu wax non non mais xam nga yow li ngay wax ni sax gëmuloo ko. parce que mëno toog ak ñun nan ñu. mëno tagay dem parfois ci ay plateau di défendre le président de la république et sa politique. di fa dem en tant que politicien. léegi fa vous êtes là da nga am ñaari casquette. dina ñëw ci jeunesse bi. waaw léegi déglu naa na question bobu ngay tontu. par rapport ak ce recrutement 400 jeunes. dinaa la tontu xam nga tey yaa ngi ni émission bu mu commencé tag man damaa foogoon nag may laaj lan laay andil xale yi ci wàllu entrepreneuriat emploi waaw mais yow ne après la oui nga jël léegi man parce que dafa am actualité bu fi nekk waaw nga jël léegi man sama appartenance à l'APR ma nekk un homme politique nga ma si pose question léegi nag man su ma jëlee si sama manteau homme politique sol ko di joxe ay réponse yow nga ne ma déedéet ministre nga ministre la mais ci émission bi fu mu toll nii politique nga ma posé question. bàyyi ba mu jeexee soo convoqué ministre. donc man en tant que citoyen sénégalais en tant que homme politique man maa am opinion politique yoo xam ne ça n'a rien à voir avec l'opinion d'un ministre de la jeunesse. jour bu ma wootee daje ministère de la jeunesse wala nga posé ma question ci wàllu entrepreneuriat au lieu ma tontu la may tontu ay mbiru politique boobaa bopp na jàpp ne maa ngi def conflit de rôle maa ngi def ay conflit de euh, par rapport ak li nga xam ne suma cër mooy suma rôle. donc man le dis encore une fois je le dis en tant que sénégalais je le dis en tant qu'homme politique, sur mon opinion politique là, yoo xam dama ko assumer Oui, ci sa opinion politique monsieur le ministre li ñuy wax si jàpp yi que euh, booy xool ñi